ñoo xeexal dina waaye yàlla dafa dogal ñoom lañ doon benn seen a day mat ñu dem wala buur yi ray leen yëfee jeex waaye Sëriñ Tuubaa la yàlla dogal mu jax soog nasaraan bi ba lam amoon yéene mu lëggéey ko ba mu yëg ne mat na mu sokkee bàyyi ko ndax ba xoolee euh, Maba Jaxu Ba ba mu feeñee ci Saalum xeex ak yi wan leen ne leen lañ ci bëgg a taxawal ba gañe leen xeex ak lu mel ni buri jolof yëpp xeexee na ñoom ba gañe leen daal di woo njaboot bi yëpp waa réew mi ne nañ ko fekk si Saloum